نون والقلم وما يسطرون maa ngi tudd imam Khadim Ndiaye jiite commission scientifique yaatal mbindum alxuraan. dañu boole juróom benn région. bi ñu ko nattee ci nattuwaay bi ñu ko war a natt xëy na mujj na yàgg. ci ñi mën a dem douze lañ douze yooyu nag ñoo dem final war defe woon ko Ziguinchor. ñëw fii tey nag maatam pour lauréats yi ñu jox leen seeni neexal ak ñi nga xam ne itam dañ cee bokkoon même ñi jàllut sax ku ci nekk euh, jox nañ la enveloppe bu cent mille francs même ñi nga xam ne ñoo jàll ci ñett ñooñu kenn ku ci nekk euh, jox nañ ku njëkk ki cinq cent mille francs ki ci topp trois cent mille ki ci topp deux cent mille francs ak nag yeneen i trophée ak ay euh, alquran li ci ëppati solo nag muy organisation bi ak wuy si gi nga xam ne waa maatam wuy si na ko ñu dara jaale ko nag ku baax koo xam ne ñëpp ci xam-xam ci alxuraan lañ ko xam muy Ceerno Mouhamadou Samassa mu yabal njabootam ñu ñëw fekk si liggéey bi te it keroog bi nga xamee ne yaatal mbindum alxuraan juddu na te doon ab xalaat nga xam ne jëmmalaguñ ko sax dañ def délégation ñëw ci moom waxtaan ak moom mu rafetlu ko wane ne lii moom ñeme naa ko te it yéen ñii ma gis ñeme naa leen tey ji loolu la fedd li moom bariwul ak jaxasoo jàngale rek ak jàng ci la nekk waaye nee na yéen ñeme naa leen ndax nitu alxuraan ngeen feeñal na ko nag ci jataay bi waaye waa dëkk bi autorité yi ak ñi nga xam ne ñooy notable yi muy commerçant yi ak waa Kër Sëñ Touba yi nga xam ne alxuraan ma nga fa di jolli xasida yi di fa joll taxawaay ba nga xam ne am nañ ko ci bis bi tax na ba wax dëgg yàlla eh, xamoon nañ ne maatam ku fi def liggéey bi dana am solo waaye solo si moom bett nañu jóge nañu kaw. بنعمة ربك بمجنون